mbokk jullit yi sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi nettali ci alquraanul karim ci suuratul xadiid aaye douze ba aaye gaa ñi nga xam ne dañoo saxoon ci jaamu yàlla gaa yi nga xam ne dañoo toppoon yàlla di góor góorgóorlu seen kéemtalaayal kàttan sax ci loolu ba dee fekk leen ci ñooñu borom bi nee na ëllëg yowmal qiyaam bu ñuy dekki dangay gis ña nekkoon ay góor nekk way gëm yàlla nekk ay jigéen nekk way gëm yàlla leeraay di daw ci seeni kanam ci seeni ndeyjoor borom bi ne yawma taral muminina wal muminaat yasaa nuuruhum bayna aydihim wa bi aymaanihim borom bi nee na way gëm yàlla yu góor yi ak woy gëm yàlla yu jigéen yi yowmal qiyaam day leer moo leen di wër ci seeni kanam ak ci seeni ndeyjoor su ko defee malaaka yi wër leen ndeyjoor ak càmmoon naan leen bushraakumul yowma jannatin tajri min tahti al anhaar waay waay bég leen tey mooy bis bi yàlla digoon tey mooy bis bi leen yàlla di teral tey leen yàlla di dugal aljanna àjjana joo xam ne tajiri min taxati alanhaar la ko wër day daw ci suufam ay dex waaw aljanna yi ay kër la yoo xam ne ca suufam ndox a fa nekk day daw mel ne bato bu tegu ci ndox borom bi nee na buñ fa duggee dootuñu génn xaalidiina fiha zalika huwa al fawzul azim lii day mooy texe lii day mooy mbégti dañ fay sax éternellement mbokk jullit yi waaw ñii ana lañ lañ def ba leer wër leen seeni kanam ak seeni ndeyjoor min ayna ata almuminuuna bi haza nuur al azim way gëm yàlla yi fan lañ jële leer gi bis boobu ci bis bu màgg boobu dëgg-dëgg ku koy gëstu dana gis ne lakkat ja bihi min amalin kasira amiluha fi dunia la ko may ñu yóbbaale ko àllaaxira demu ñu ba àllaaxira am fa leer waaye dëgg-dëgg dañ koo jëfoon fii ci àdduna leer gi topp leen nag ànd ak ñoom ba àllaaxira pour niital leen yoon gu ñuy jaar daal di tàbbi aljanna waaw waaw tooguñu rek ba yegg foofu rek leer gi wër leen déedéet dañ ko jëfoon fii ci àdduna ay jëf yu baree bari yu baax lañ boole woon ñu dem àllaaxira yàlla faye leen ko borom bi wa taala nee na bokk na ci jëf yooyu gaa ñi day bokk na ci jëf yooyu ñu doon def mooy julli fajar ca mbooloo wa min haazil amal salaatul fajri fi jamaa bokk na ca la leen may leer yooyu mooy di yeewu fajar di julli waaye di ko julli ci mbooloo jàng leen xadis ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax bashir almasaaina fi zulami ila almasajidi bi nuuri tàmma yowma alqiyaama yonent bi na bégalal gaa ñi nga xam ne dañuy yeewu di lën topp yoon gu lëndëm gi jëm ca jàkka di julli noonu ñu toppe lu yoon yu lëndëm yi jëm ci jàkka di julli ëllëg la leen yàlla di terale leer gu rëy rëy rëy yowma alqiyaamati ndax kat ñoom ñoo doon yeewu topp lëndëm yi topp mbedd yi jëm ca jàkka yi di wuy ji yàlla kon tey jaadu na ñoom ñoo doon dox ci lëndëm bi tey dox jaadu na tey ñu dox ci leer allahu akbar mbokk julli di gis ngeen kon julli fajar li muy may doomu aadama ëllëg yowmal qiyaam dangay am leer gu sax yowmal qiyaamati kon ku bëgg leer ku bëgg dox ëllëg yowmal qiyaam ci leer ci lumière góor góorlul ngay julli ji fajar jàkk góor góorlul ngay julli ji fajar jàkk waaye kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññe ne wax ne gaaw leen ci jëf yu baax yi ndax kat maa ngi seen fitna soo xam ne mu ngi mel ne dafa lëndëm ba mel ne daggitu guddi allahu akbar lëndëm nga mel ne daggitu guddi xam ngeen ne foofu doomu aadama laaj na fa mu am fa lumière ndax lëndëm gu lëndëm ba mel ne daggitu guddi kuy jaamu yàlla moom lëndëm googu doo ci nekk moo tax ëllëg yowmal qiyaam naafiq yi dañuy xool jullit ñi gis ñu ngi leer lépp a ngi leer ñu xool leen naan leen waaye waaye may leen ñu ci seen leer gi unzuruna naqtabis min nuurikum xool leen ñu ndax ñun tamit ñu mën a am ci seeni leer gi leer lan la leen waa aljanna di tontu lan la leen way gëm yàlla di tontu mooy dellu leen ginnaaw fa la leer fa la ñuy jëlee leer mooy lan mooy àdduna la ñuy liggéeyee leer doomu adama bu buggee bàmmeelam leer doomu aadama bu buggee yowmal qiyaam ay mbiram leer fii lay sàkkoo leer googu fii ngay taxawoo ci jaamu yàlla fii ngay taxawoo ci kennal yàlla fii ngay taxawoo ci topp sunna fii ngay taxawoo ci alquran fii ngay taxawoo ci say julli fii ngay taxawoo ci say jëf yu baax kee dina mbàllaa xira naan yàlla su ma xamoon wala delloo ma su boobaa da ngay perte matt say bàcc say baaraam daal di weccax fekk sa c'est bàyyi ba jaan ji wéy nga dóor ci ngay dóor watat gi amul njëriñ bàyyi ba néew bi ba nit ki faatu ngay woowi docteur amul njëriñ kon mbokk jullit yi ñu ngi ci waxtu jaamu yàlla ñu ngi ci waxtu topp yàlla liñ leen waxoon rek koor moo jeex waaye jaamu yàlla du jeex ramadaan moo jeex moo koor jeexul zakatul fitr jeex na waaye sarax du jeex jaamu yàlla du jeex du fi jóge ndax yàlla ni mu fi saxee dàq noonu la fi jaamu di saxee dàkk ba doomu aadama xëy daal di koy fekki moom borom bi tabaraka wa yàlla yàlla saxal ñu ci diine yal yàlla dundal ñu ci imaan rey ñu ci islaam yal na yàlla taxawuñu taxaw njaboot gi yal na yàlla teg ñu ci siraatal mustaqim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.